mu am nag yenn chefs religieux yoo xam ni dañoo nekk ci côté sëriñ bi di influencer ay nit ñu bañ a wutee bi Galas Kaltoom kay nekk na fi député sept ans mës na jëriñ régime bi dara ba daanu ñu wàcce ko mu jël ay gone dem ci kër xalif bi di yuuxoo premier ministre Serigne naa Nawe damay créer nit pour mu nekk président pour samay problème réglé sëñ Touba nekkul foofu. bu fekkee day jàppale na jàppale ki defal ma ki defal maam Ila Touba 416 milliards buy jàppale na jàppale ki def ki ki ki def euh, euh, hôpitalu 45 milliards. bu fekkente ni nii day jàppale na jàppale ki ki ki xalif zaal de murid ni ko bàyyi nañ la ak sëñ Touba am benn influence bu mu def ci murid yi wala ci département Mbacké bam bam bañ wërtel ko